Cheikh Agibou Soumaré ma ñu yendal démb ca police ba mu mujjee ci garde l'observateur mi ngi ñuy wax li mu wax enquêteur ya ko woolu woon ubbil yéenekaay bi ginnaaw lettre ouverte bi mu bindoon ba doon ca laaj ay laaj yoon di woon ci réew mi taxoon procureur de la république Abdou Karim santoon waa sûreté urbaine ñu woolu ko ngir mu wax leen li mu wax mooy lan ak fu mu ko jële premier ministre Sénégal ba woon di Cheikh Agibou Soumaré l'observateur ne Sankare ak i gaayam waaye daanaka laaj bu ñu ko laaj rek mu delloo leen ko nee leen affirmé dara confirmé dara te waxuma benn yoon waxi preuve ay laaj la samp en tant que jiite ab mouvement politique toog di déglu président de la mu tontu ci libération nañu ca foofee fa ko jàpp démb moom Cheikh Agibou Soumaré sonn ci benn yoon mu di dama samp ay laaj toog di xaar ñu gindi ma ci tuumaalu kenn te tudduma kenn kenn ki waxi tubaab ni ñu ci xët mu njëkko libération bu dee fu mu ko wékkoon du fu dëgër na ko tuub jéggalu publiquement jànge ci ñu jàll ci moom Cheikh a génne auditionné gi wute lool ak yi mu xam nuit moom la dund démb le quotidien nañu Cheikh mu doon laaj am na tontu la démb nee na enquêteurs yi moom Cheikh Agibou Soumaré tuumaalul kenn te dëggalul dara njoxtam la doon doon demee ñu dem ci xët mu njëkk suur soi mi dem ci wax ji ba dañuy wax ne premier ministre ba woon di Cheikh Hadjibou Soumaré àdduna mi ngi bëgg ne garde bu ñu ko dégloo bu nuppi delluwaatul këram ñu dellu ci l'observateur fekk fa kenn ceewakam di maître Mame Adama Gueye nee na fa ba fi mu nekk ni amul benn infraction bu ñu wax ne moom la ñu koy toppee la tribune bind ne Cheikh Hadjibou Soumaré def na wax waxee démb nit ko amul woon benn argument la ñu gis démb mu doon jano ak enquêteurs yi le témoin mi ak ñun ci li Cheikh tontu enquêteurs yu sûreté urbaine ñuy xamal ne xamal na leen li nekk ci lettre bi yépp moo ko wax te da koy assumer dafa lu leeru ci boppam mu di ko laaj président de république te loolee am na ci droit en tant que politique en tant que nit ku jiite mouvement politique ab avocat di maître Mame Adama Guèye ci journal Bës Bi Le Jour ab kiliyaanam di Cheikh Agibou Soumaré li ko enquêtekat yi laaj joxe na ci ay tontu yu leer nañ li indi coow li di xaalis bu toll ci juróom-ñaari milliards yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions yu mu doon laaj ndax président Macky Sall da ko may benn kilifa bu jóge woon France ñëw ci Sénégal mi di ko jox ay kilifa yu ñëw ci réew mi loolee na Sénégal dafa mel ne aada la ci réew mi yéenekaay xeetu genn wàllu milliard bi fi Abdoulaye Wade duyaloon Alex Segura 2009 2024 waa kër Abdoulaye Wade di waa Parti démocratique Sénégal jigéen ña ca nekk journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne tànn nañu Karim Wade investir ko def ko seen mbër ci élection présidentielle yu keroog la woon 8 ba ñuy màggal journée de la soxna Waré Sarr ak ñi mu àndal woote woonum ndaje ca permanence su Parti démocratique Sénégal ci VDN bi jigéeni parti bi bàyyee woon ci mboolem département yi ci réew mi Ziguinchor ba Saraya jaar Kédougou Bakel far mujj soppali ko doonub congrès fala madame Waré Sarr ak ñi mu àndal investir Karim Wade dëggal ne mooy doon seen candidat ci élection présidentielle yi jigéen ñi ak seen bés boobee ñu doon màggal ci réew mi la tribune mi ngi ñu wax ci xëtamu njëkk keneen ko ca ràññee ko journal bi nee nañu mooy directeur général bu COUD Maguette Sène mi jiite mairie bu Malicounda keroog ba jigéeni département yu Mbour bi dajee ca Somone ngir doon feete 8 mars fa jëlee engagement moom Maguette Sène ne dina gunge jigéeni Mbour yi ci ba ñu mën a am seen autonomisation mën a moom seen bopp mënal seen bopp bopp yéene kaay bu waay xëy xool fekk fa waay yeewi askan yu bokk ci ñoom l'observateur mi bind ne waaye yeew yi lu ñu fas yéene mooy gouverner république bi nee nañu talaata jii di ñëw fukki fan ak ñeent ci weeru mars méga meeting la ñu woote ci ëllëg sa di àllarba fukki fan ak juróom ci weeru mars ñu amal ay doxi ñaxtu di marche ci ñeen fukki département ak juróom benn yi ci Sénégal journal l'info duñu xamal ne démb lañu ko xam ne ñoom leader yu yeewi askan yi ba ñuy amal ab janook taskatu xabaar yi kàdduy Ousmane Sonko ci xët leeral ne woowu na nit ñi ci ab ngir ñu dem ca palais ba jëlee fa président ba fa nekk woowu ñu kenn ci ab guerre civile mobilisation lañu woote ndax am nañu sañ-sañ bi dolli na ci moom Ousmane Sonko xaaruñu ci autorisation am ko ak ñàkk ko la ñu yamale maa ngi waxit képp koo xam ne yaa ngi may déglu jox naa la ndigal ngir suñu yeggee ci bés ba nga wàcc ci mbedd mi mobilisé wu wàcc ci mbedd mi amal sab marche bu fekkee dañoo bëgg ku ñu jàpp nañu ñëw jàpp ma man mi joxe ndigal li vox populi nañu fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom ci weeru mars waaye yeewi li ñu bëgg moo di jaxal mbedd mi journal bi duñu fàttali ne ci ëllëg sa di yem fukki fan